dikkati naa sondage yaa ngi mel ni tulleeg maale ci réew mi l'enquête quotidien naan man ku nekk sa bos campagne baa ngi dardari di bëgg jeex ku ne ngi def sak sondage di wane ni fi mu ne ndam li mi ngi sa loxo le soleil yéene naan man en tout cas Mamadou Matar Sy sa ministre de l'intérieur ma nga woon ca Thiès te daal dinay xam le ni résultat ya wóor ma ngay bàyyeekoo ca scrutin bi te keroog ma ni la ca ngoon lépp lu ñu wax lu dëggu lay doon tribune yéene kaay naan man résultat woo résultat jàppale ni élection présidentielle yu dimanche bii ñaareelu wërngal mënu cee ñàkk faaw nag ñu daal di dem ci second tour boo moytuwul te ñaareelu wërngal ba diggante Bassirou Diomaye Faye ak Amadou Ba lay doon fukk ak juróom-ñett ci ay candidat la ñu am fi mu ne bokk na ci ñoom benn soxna Anta kar Ngom ñu war a ñaabar ñaabari nag kenn ci ñoom nag moo war a nekk juróomeelu président bu Sénégal yéene kaayub dee média bi naan lu tax moo fukk ak juróom-ñett Cheikh Tidiane Dièye dafa xalab candidature am nee na bokkutul ci élection présidentielle bi Habib Sy niki dem bi daal dina koy feelu benn milliard mani la daal dinañ koy ñàkk loo askanug réewum Sénégal seen candidature yi ne bàyyi nañ ko te ba ñu koy bàyyi fekk alal ji dem ci ñoom matériel électoral ba daal di dem lañ leen war a defal ni ki liñ leen war a voté lépp nuppi na ku nekk ci ñoom juróomi téeméeri million ñàkk nañ ko ci yow boo leen boolee muy benn milliard e xaalisu askanu Sénégal dem ci ñoom ñu ne bàyyi nañ les éco naan ko déet nee nañu bàyyi nañu waaye conseil constitutionnel daf ni leen mënta ne daf leen jox rendez-vous ñaar fukki fanak ak juróom-ñeent ci weeru mars ngir saytu seen dossier courrier ba nga xam ne moom la ñu war a dàqee seen candidature kenn yëru ko ay sandarme lañ faf ngir ñu dàq seen i mandataire foofee conseil bi ni leen ak fi mbir yi tollu bokk force turbine yéen a kaay naan man en mbir maa nga ca loxol Amadou Ba ak Bassirou Diomaye Faye moom Karim Meïssa Wade ak Bougane Gueye Dany ne nag daal di yëre yi nga xam ne mooy ñi war a fal buur ci réew mi le point ak ci naan man moom Bougane Gueye ku muy jàppale ci élection présidentielle bi day ni ki tey aljuma ji dees na ko xam ndax njiital gëm sa bopp dina ci àddu daal a ñooy buur di bu mi ci réew mi dibéer gii ma ni la doole yi doole ma ci électeurs yi ndax nag ñoo war a fal kan mooy doon président ci Sénégal le quotidien le quotidien naan man campagne baa ngi mel ni tulleeg maale sud quotidien ma ku ne ngi wane dooleem fi mu ne ñu daal di yegg ci wërngal këpp gi ni ki tey ci aljuma ji la campagne bi di jeex ñu nekk ci virage bu mujj bi ku ci nekk fas yéene yooyu nopp ñette des na ku ci nekk di dëgërël nag sa base bi nga xam ne fa nga ëpp ay électeur le kaay naan man attention la daloon wàdd 2012 ndax du dal gaayu Amadou Ba ak 2012 nag waa parti démocratique sénégalais xamoon nan ni daanaka mbir mi gas yi jeex na ñu gas ba mu xóot fond de campagne yi daal di ciy toog moom Wade la mu digle woon ca campagne bi kenn defu ko moo tax nag gisuñu dara cëppeelu la ñu def daanu ci suuf l'observateur naan man ña nga xam ne dañoo amee laago ci réew mi te tollu ci ñetti million nee ñu gisuñu seen bopp ci campagne bi te moo ne day ay électeurs lan yoo xam ne bàyyiwuñ leen xel turbine yéene kaay naan man ngeen bàyyi xel ni diggante Amadou ak lay doon ci ñaareelu wërngal ba yéene kaay bi dee média bi man Amadou moom ma yeeki renfort juróom benn téeméer ci ay chef de village moom professeur Moussa Baldé daal dina leen di seeti moom ministre de l' éducation nationale ak bu supérieur di coordonnateur Benno Bokk Yaakaar ca Kolda daal dinay jiite délégation boo xam ne Kolda ak la ko wër yépp daal dinañ koy wër diggante imam ak notable ñun leen jàpp loxo tegal leen programme Amadou ngir ñu yër ca diwaanu Mbour tribune yéene kaay naan man faatu Seck Diagne dajale na soxnay mbuur yi ñu dalal Amadou Ba ni waaye tam joxante loxo ngir ndam la daal di loxo keroog ca ngoon diggante commune bu mbuur ak la ca wër ñu fas yéene fa jàppale am responsable département bu soxnay Benno Bokk Yaakaar ca Mbour si Sira Ndiaye woote bu waxtaan lépp tënku ci wat gu ñu war a def ngir Amadou Ba turbine naan maan lu mu métti métti bu leen fàtte ni ñaareelu wërngal mënta ñàkk ci l'élection présidentielle diggante Jomaay fay ak Amadou Ba le tee mooy yéene kaay naan maan kàddu googu day Mamadou Gueye maire bu Jidda Caaroy Kaw ma ngi koy daal di ni ki démb diggante Jidda Caaroy Kaw ak arène nationale ci mbooloo la taxaw naan leen ndam li moom dees na ko jox am te deesul xaar ñaareelu wërngal wërngal wu njëkk wala l'observateur naan man ku ne ngi ngemb sa mbër fi mu ne mbëri ci boppam di ngemb seen bopp ngir élection présidentielle bi Anta Babacar Ngom ma ngay xam le ni jomaay la fas yéene yóbbu ci yoon moom jomaay fay ne béykat yi ci boppam laa bëgg ñu tex teex reetaanaat ci réew mi Idrissa Seck daal dina ndam li mi ngi sama loxo ba nuppi Aly Ngouille Ndiaye ne Casamance laa bëgg def grenier agricole bu réewum Sénégal yéenekaay bi ñëw ci Mame Boye ak bilan campagne waaye tam professeur Daouda Ndiaye ak programme am le ak ci naan maan moom Serigne Mboup nee na dina taxawal caisse maladie mu wuutu fi ak mu dalal xel fonctionnaire yi ci avantage yu ñuy am ne préférence nationale lay andi ci réew mi ci marché yi li gën duuf entreprise sénégalaise di jël ko formation professionnelle ñu andi ko partenariat diggante école franco arabe yi ak daara moderne yi loolee ñu daal di leen di taxawal turbine yéen kaay naan maan boobu Moulay kamara bu mouvement J'aime la Sénégal ma ngay woote moom it ñu wote Alioune Mamadou Dia ma nga naan candidat pur bi bu leen fàttalikoo diggante 93 ba 2000 ba ñu yaatalee yoon bi maître Abdoulaye Wade ay téeméeri téeméeri taalibe Moustarchidine ñu jàpp leen niki noon it Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy loolee ñu leen baleel niki tey jii la njoogu siise ci tribune yéene kaay naan maan Idrissa Seck pacte la fas yéene xaatim ak sénégalais yi diggante mbay mu neex barkeel yoo xam ne day am drone goutte à ay laser ak i forage ngir mbay mu mësta am Afrique sowu jant am fi pacte ngir ay technicien qualifié am ci réew mi ngir industrie seen liggéey gën a ñoŋ pacte ngir femme au foyer gis seen bopp ci réew mi pacte ngir ña dëkk ca kaw ga gis sen bopp ci réew mi pacte ngir koomuk réew mi mën a joyiku pacte ngir réforme système foncier ak capital urgente am ci réew mi le quotidien le quotidien naan maan lu mu neex neex jàppale ni campagne électorale bi ma ngi ci yoonu jeex Khalifa Babacar Sall ci Vox Populi Sénégal moo ma tax a jóg Pape Djibril Fall naan ëttu këru diine yi la ñu fas yéene moderniser Déthié Fall daal di woote mbooloo ca Tiwaawoon ak Bambey Déthié naan lii wane na ni Sénégal daal mi ngi bëggub coppite yéenekaay bi naan maan Boubacar Camara ma ngay xamle ca Mbàkke naan faaw nu joyanti daara méngale koog jamono waaye tam tourisme culturel dees na ko liggéey ci réew mi Walf Quotidien naan maan Anta Babacar Ngom daal ma wax ak soxna yi naan leen nañ leen jox seen chance ci réew mi ngir ñu mën a jàppale soxna yi nga xam ne tum ranke nañu it a xam le ni élection la ñu bëgg yoo xam ne dana leer naañ ñi du am benn njuuj njaaj waaye tam violence du am ci les élection élection gu mu mënti doon ak importance bu mu mënti amee ne ay violence yoo na ko def ci askan wi lépp nag daal di aajoowoo ci ne kii dafa fas yéene woteel keneen koo xam ne du man njàngu bi naan loolu ñaaw na salte na ci deruk Sénégal akub askanam nañ ko moytundiku ci yile élection présidentielle libération yéene kaay naan man en tout cas Bassirou Diomaye Faye ma nga naan yorinu gaz ak pétrole ci réewum Sénégal mënee suñu koo dee dénk ku dul koo xam ne ay loxoom set nañu ndax dénk ko ñeneen daanaka mooy sax saaxee réewum Sénégal turbine yéene kaay naan maan ak lu mën a am jàpp leen kàddu yi ña jëm nag ci ñaareelu wërngal boo maytul ci élection présidentielle bi diggante Amadou baak ak Jomaay lay doon ci fukk juróom-ñett candidat yi génn soxnaa ci am te kenn ci ñoom mooy doon juróomeelu président bu réewum Sénégal diggante Karim Meïssa Wade ak Bougane Gueye Dany ña nga taxawee nag ca ruq sax nekk ay faiseur de roi yéene kaay des bi naan maan ak lu mën a am campagne bi la ca jeex neexul kon mu gën ci moom moom Mamadou Yatassay candidat recalé la ni ki démb ab malaise moo ko daal di songu moom Mamadou Yatassay daal di faatu ci saa si tey 15 heures lañ koy jébbal boromam ca diwaanu yëmbal yàlla suñu borom jéggal ko ak lu mën a mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm